ngi leen di nuyu di leen uh, sant bu baax seen uh, teewaay di am mbégte ci teewaat fii ren ji comme ni ko defoon daaw ginnaaw liggéey bëri bi nga xam ne génn nañ ci muy organisation Magal Touba ñu def ci ndigalul ki nga xam ne moo di Serigne Touba di Cheikh Mamadou ak ci njiital ki nga xam ne mooy président comité d'organisation bi Serigne Bassirou mu nekk màggal boo xam ne dañ ko def ci contexte bu bu xaw a metti ndax contexte Covid lañ ko def ñu bare bari ragaloon cool yi bari woon lool waaye nag sëñ bi dogg ci ñaan yàlla sax dogal mbas mi mel ne moom la fa jaare dem kon nag tey ci loolu lañ bëgg dellu si waat ci fi nga xam ne fi lañ fi fi lañ jaar lépp ci mbooleem aspect yi nga xam ne moo aju ci wàllu organisation bi moo tax kàddu yi du gudd ndax li ci ëppoon solo ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénkoon def nañ ko ba tënk ko léegi leen damay rek ñu dëkk jàkkaarloo ak yéen leeral leen ko leeral ko Sénégal ñu xam ne gannaaw buñ màggale ba noppi ba am lu mat fukki fan ak juróom ñaar wala fukk juróom ñett nga xam ne mbas mi moom màggal bi amu ci benn impact nu meloon dafa gën a wàññeeku professeur dana ci ñëw léegi yeneen yi nga xam ne moom concerne organisation bi itam ki nga xam ne moom la ñu dénk dëkk bi mu ngi seen ab laxat ka te moom itam mu yoroon pàcc bu rëy ci biir organisation màggal bi ci wàllu maire bi moom itam dinañ ko jox kàddu mu dikk moom itam leeral askan bi fi nga xam ne fi la si jaar bu noppee nag ki nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu jëwriñ ci liggéey bii di Serigne Ousmane moom dina ñëw jaar ci mbooleem commission yi liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey bala ñëw Serigne Bass di di sant foog naa mi ci biir kër gi sax sori soriwut kon nag li nga xam ne moom la ñu daal def rek moo di dañuy invité professeur Lamine Gueye euh, mu dikk man du ma awma lu ma ci wax ndax la ma ci wax lépp foog naa wax naa ko lu jiitu màggal ko wax naa ko dinaa màggal bi kon tey jataay bi ñoom lañ ko organisé ñoom ñoo ko moom ñun amuñ ci benn kàddu xanaa nag di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek ñu def ko ay at bare bare bare bare te sëriñ Tuubaa nangu liggéey ñu ngi nuyu waa comité d'organisation yi fi teew yépp jël nuyo boobu teg ko ci loxo sëriñ Ousmane Mbacké moom mi nga xam ne mooy coordonnateur bi mu jokkalil ñu ko xalif général des Mourides ak euh, sëñ Bassirou Abdou Khadre moom mi président bu comité d'organisation Magal di leen nuyu yéen ñëpp. unité d'alerte euh, et d'épidémiologie du Grand Magal de Touba xam ngeen ne ci biir comité d'organisation bi la bokk nekk kuréel goo xam ne. xalif général des Mourides moo ko taxawal depuis màggalu daaw màggalu ren gi nag comme ni ko sëñ Cheikh Abdou Lahat Gaynde Fatma waxee dafa nekkat encore ci contexte sanitaire bu xaw a particulier muy euh, mbas mi nga xam ne ci àdduna bi yépp la law depuis mars 2019 ñu màggal ci daaw euh, yàlla def màggalu daaw gi amul woon benn njeexit ci mbas mi ren bi màggal gi jubsee sur le plan stratégique ñu sant ci yàlla sant aussi les partenaires du comité d'organisation et en premier lieu le gouvernement qui est le premier partenaire du comité d'organisation euh, màggal gi màggalam la Et sur le plan de la santé, évidemment, c'est aussi le premier partenaire par le ministère de la Santé, par la région médicale de Djurbel, mais aussi le district sanitaire de Touba. ñooñu moyens humains et matériels yi ñu déployé tax na résultats yi nga xam ne dinañ ci ñëw euh, contribuer nañ ci lu bëri parce que santé moom question moyens matériels ressources humaines ak communication donc ce qu'il faut retenir mooy déploiement de ressources humaines vous savez que ci état bi moom ci boppam 5700 euh, agents la déployé woon def 187 postes médicaux avancés te loolu mooy permettre une médecine de proximité pendant le màggal def ko ci les zones stratégiques yi ñu ñëw unité bi renforcer ko par ses par ses partenaires les moyens matériels aussi étaient très importants ressources matérielles yi nga xam ne état bi déployé na ko mais aussi communauté bi par l'intermédiaire des daïra ce qui fait que ci résultat yi dinañ relater le fait que y pas eu de problème de rupture de matériel quant à la prise en charge ci malade ren nag li nga xam ne moom lañ tëraloon ci programme mën na ma wax ne lépp ci ndimbalul yàlla ak ci jàppalelal kilifa yi jot nañ ko sottal loolu nag mu am yoo xamante ni waxtaan yu yaatu lay doon moo xam forum lañ koy tudde wala colloque lañ koy tudde wala nu ñu koy mën a di am euh, euh, di faral di am laata màggal gi wala loo xamante ne table ronde lañ koy tudde wala conférence bu mag bi baaxoo di am ci guddi màggal gi lañ koy tudde wala ay émission euh, télévision ak rajo yu mel noonu lañ koy tudde wala waxtaanu penc lañ koy tudde yooyu yëpp ci programme yi la bokkoon lu aju ci waxtaanu penc yi li ko lal mooy dañuy def at mu det ñu tànn ñaari pénc ci ña ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi ci mbokki boppam bi ak ci magi taalibe yi nga xamante ni pas-pas moo leen boole ren nag yàlla dogal ñu tànnoon sëñ Mouhamad Lamine Gueye Jamooy ak sëriñ Mbacke Kajoor waxtaan yooyu moom lañuy tëdd tudd waxtaanu pénc mag muñ ci tànn mu nekk dañuy seet la mu gënoon a ràññee ci aw doxinam ci ànd ak sëriñ bi ci jàpp ci liggéey bi ñu waxtaane ko ci penc moom waaye nag du génn tuuba dañuy seet euh, pénc mi nga xam ne ñoom lañ yilif ci biir Touba ñu dem fekk leen foofu fekk fa njaboot ga euh, waxtaan ca ak ñoom euh, fukki fan ak juróom ci weeru màggal gi ci weeru safar am na jotaay bu mag bu ñu amal muy forum bi boo xamante ni waxtaan wiñ daa amal ci yoor yooru màggal gi daa ko séq ak suñ mbokki suñ mbokki këri diine yi ci biir Sénégal ak association islamique yi boobu leen xëcc ren euh, génne ko lu jiitu ñett fan laata màggal gi def ko mu gën a yaatu ba mu am aspect international nga xamante ni yëmatu ci waa réew mi rek waaye waa bitim réew sax dañ cee bokk reen ñu doon ci waxtaane lu jëm ci euh, lu jëm ci ngirum imam Malik ak naka la mën a euh, dëgërale jàmm ak déggoo ci biir askani ci biir société africaine yi ñu woon ci yeneen ñaari réew kenn ki ci ay ay docteur ay professeurs yu mag kenn ki jóge woon Maroc ki ci des jóge Mauritanie ak suñu mbokki euh, suñu mbokki julli ji nekk ci biir Sénégal ñenn ñi jóge euh, ci tariqa al qadiriya yi ci des tariqa tijaniya ak euh, yoonu murit. waaye yi nekk Touba yépp continuer ñoom di joxe ci réseau bi maanaam di joxe ci tuwo yi muy di egg ci kër yi loolu moo doon suñu programme loolu it doon na may ngir euh, camion yi nga xam ne ñooy def ndox ci màggal bi du yépp ñoo ñooy maye ndox da ci am ñoo xam ne ay nit ñuy liggéey ñoo ko moom di jaay seen ndox te dañuy rooti fi nit ñi roote fa lañuy ñuy rootee kon ñooña bu ñu rootu bu ñu roote woon ñun ca biti ñooña faaw kon dañuy ñuy toppi dem rooti ca biti su ko defee kon lépp loo xam ne ndox la mu ñuy liggéey ci biir Touba duggaat ci biir Touba waaye kenn du ko rootiwaat biir Touba di ko jaay wala nga koy rootiwaat biir Touba di ko sotti biir Touba kon loolu ak yokkute rek la mënoon a jur looloo nag ñi ci jéglu kilifa yi bu baax ndax ñun defar rek moo tax a jóg musuñu am benn yoon it menn xel mu du defar loola it ab xalaat la boo xam ne jógewutoon ci kenn nit ay mbooloo ñoo ko tëgg xalaat ko bu juboo ci war koo doxal kon loola man en tant que responsable coordonnateur comité d'organisation ah euh, dama ci jégalu kilifa yi ndax nit ki nga xam ne mën nga koo rootloo mu dem rootal la su la xañee ndox Euh, rek ñu ngi leen di xam ne dañ koo tëyu waaye buñ sañoon du demee noonu loola it la ko dindi mooy baat baat moo nu liggéeyloo baat moo ko dindi loola noonu rek la demee li ci des muy euh, problème mu inondation yi fi am loolu it problème mu assainissement la gis ngeen solution yi nga xam ne mooy moom lañ ci jël màggal gi daataan am sëñ bi taxaw ci Touba ci kanam taxaw ci état bi taxaw ci lis ci man def nañ ko mais loolu ndoxu taw la ndoxu taw moom yàlla waxul kenn la koy wàcc li ci ab kay mooy ñuy ñaan autorité yi ñu xam ne yàgg nañ ko wax ne nawet màggal gi ci nawet la jëm waaye léegi kenn nattab li tune ne màggal gi ci nawet la jëm lii fi am ren yàlla bu ñu dimbalee ba ñu fekk ko mu bañ am mu bañ a amaat loolu nag man koo waajal balaa màggal gi defe naa moo ci solution a ah, lu mel ne yoon yi ba tey am na ay rëq-rëq yoon yu bari fii gis yéen ko gisandoo xam ngeen ne euh, bari na ay problème yoon yu toj na bari na ay ay pax ay ay ay ay ay égout yoo xam ne amuti kubéer bari na bari na ay ay ay problème yooyu yëpp autorité yi gis nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ni li ci waa Touba mën a dund lu dul événement fekku ci événement parce que bu dul événement sax danger la ci population waaye nag lu tolle màggal Touba loolu bu amee problème lay jur ci gàttal daal man ñaari point yooyu laa gisoon ne warees na cee mën a kàddu addu ngir leeral ci askan wi ndax askan wi dañu war a xam am na loo xam ne ku bëgg xam war nga mën a am foo ko mën a xamee moo tax wax ji jóg ndax euh, sëriñ bi la ñuy liggéey waaye sëriñ bi askan wi tax muy liggéey kon loolu noonu rek la demee ñi ngi jéggulu ñëpp di balu ñëpp ak euh, di ñaan suñu borom mu nangul suñu liggéey dañ fekk waat ko ay yoon wasalaamualeykum wa rahmatullah